waaye defal ñu ak sellal ci mbooleem li nga xamante ne ñoo ngi koy yëngatu ci diine mu nanguñu ko euh, nangu gu rafet fa ñu ci jizaal awfaan xam ngeen suñ jotaay bi ñu tuddee waqafaat tadabburiya ay taxaw setantal ci biir alquraanu karim ay taxaw jàngat ci biir alquraanu karim tey incha allahu taala ñu ngi bëgg a ànd ak yéen ay dénkaan yoo xam ne Luqmaan ale Luqmaan moom moo ko def Luqmaan boo moo xam yi naan ndax ab yónante la du yónante li nga xamante ne moom moo ci gën a léemtu daay wax daal mooy waana joo xam ne bu bëggoon maam bu amoon xikma la bu yàlla defaloon xikma la Luqmaan borom bi subhaanahu wa daa indi ci biir téere bi ay dénkaan yoo xam ne Luqmaan moom moo ko dénk moo ko doon dénk ab doomam mu nekk ay dénkaan yoo xam ne waajur wu ne war na di ko dénk doomam waaye war na di ko appliquer ci doomam ndax base ab yar nit ki xale boo ko bëggee yar nga bëgg cee génne dénkaani Luqmaan yi nii danga am jafe-jafe moo tax fa Luqmaan tàmbalee ci ba muy dénk doomam ja yow miy yar mo xam say doom nga yor mo xam doomi jàmbur nga yor na nga tamlé sa yar ci li ni boko defé li ci tagu yëpp day yomb luqman borom subhanahu wa taala dafa wax ne wa qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash shirka la zulmun azim borom bi ne fatlikul wa idh goge borom xam-xam buñ koy firi dañuy natalé wadkum fatlikul باغا خامتاني لقمان واخنا دومم لقمان واخنا دومم نيكو يو سما سندوم لا تشرك بالله بول بوكالي يالا اك دار لا تشرك بالله بول بوكالي يالا اك دار نده ان الشرك لظلم عظيم بوكالي تون كو ماغلا مبوك جولتي نان داخو سيتانتال سي ديغنتي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم Luqmaan ba muy dénk doomam nu mu koy njëkk dénk mooy mu bañ a yàlla dara ndax ak tooñ gënte ñaaw yàlla mi la jële ci ndox jaar la ci ay jaar jaar ci sa biiru nde jaar la foofu noonu ba nga am noo toll nga génn di raam di def lu ne ba am noo toll ba màgg am keneen koo gis koo xam ne yaa ngi ko bëgg a boole yàlla mi la defal lii nii loolu ak tooñ gën koo mbokk yi moo tax mu ne inna shirka la zulmun azim bokkaale nag boo ko defut rek yaa ngi yàlla borom subhaanahu wa taala te wéetal yàlla moom lañu yàlla digal maam li li njëkk digal bokk na ci mooy wéetal yàlla loolu ñu koy sellalal jaamu gi di ko wéetal di ko jaamu moom doom bañ koo booleeg leneen ndax luñ ko boole rek bokkaay lay doon te bokkaale moom lu ñaawa ñaaw loo xam ne boroom bi nee na inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ la boo xam ne tooñ gu réy la خليهم كفر دل إن الشركة لان قوي نك تلا قول من قل قول نعرف أقدم لك اسمي يبي يب أي فرد دل اللي يخمن إن جان أراب خمن إن يوي أي فرد دل اللي يخمن دنيا فرد دل إن لين بوجا هم بوك على دي تون جو مات جمعنا كون يومي يا سن جبر يومي يا جبر تو جامر نعاي غور غور باخ بلين إن جك دوقت نيوم أي توحيد أن خالصا توحيد بسل يبلن كدينه يبلن كباس باس بسل نخمسين برام سبحانه وتعالى di jaamu seen borom moom képp bañ koo booleek leneen ah bañ a dugg ci njaxas mi xew waaw yar leen ci ñu xam ne yàlla moom moom lii lii yàllaa ko jagoo bu buñ buñ ko booleeg keneen lii yàlla moom buñ ko jël di ko jox keneen ndax loolee bu ko ñut faatuwaale sawar lay jëm Luqmaan Se bokk na ci ay ndénkaan li ci gën a sew sew mooy gis na li mu njëkkee dafa nekk li gën a danger ndax bokkaale leneen bu ko ñut ki faatuwaale yàlla mën na koo jégal mu dugg aljanna waaye bokkaale moom ku ko faatuwaale الجنة حرامت يوم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تونكتي أم بني ديمال بني ديمال كون نيو تاندي كو بوكاي كيب كو يار ساي دوم ماغا يار دومي جامور نين لين لي نيك ايديك نانيكي موي توحيد يوم يوسا دار اك لينن لينن ليب واي نان ني جيتا جات جي توحيد ميغي ام بروم سبحانه وتعالى مو بولين كيغا خامتاني دانيي فاتوا التوحيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين